internet Publica Sen TV ñu ngi leen di gërëm leen sant bu baax a baax ñu fas yéene ñëw ak yéen seen émission bi di sa xalaat ñu fi dalal koo xam ne dañu ko présenté mu di Clédor seen ñu ngi lay nuyu sëñ Sène. salaamaaleykum maa ngi lay maa ngi lay fay euh, di la remercier ci dalal bi ma dalal ñu am fas yéene fas am beneen jotaayu waxtaan ak euh, waxtaan waxaale waxtaan bi sax ko sabab bokk na ci discours à la nation bu président de la république bi nga xamné amal na ko démb sa impression par rapport au discours bi nak nga ko jàngatee. waaw comme ni mu ko waxee woon rek sama première impression euh, sur la forme mooy euh, mandargay république bi nga xamné mom lañu la def ko ci couleuru parti APR. manam moy so bobu li ñuy tuddee armoire té mu nekk ci gannaam mu am ben gaynde ak ben benn baobab bo xam moy mandargay état du Sénégal moy suñu ay signe officiel donc nous ñun dañuy dem ba le ko ministre bu parce que le ministre de la justice dañ garde des sceaux les sceaux de la république s'entend donc mandarga yooyu dafa sacré mon euh, la patrie avant le parti Si mu ni confondre le parti et la patrie parce que la patrie c'est vert jaune et rouge le parti c'est beige marron moom bu nekkee ci benn fond bu marron def suñu la république beige marron loolu euh, ñàkk respecté sénégalais yi la ñàkk respecté les sceaux de la république la te moom moo waroon a sàmmlu loolu comme ñoom ñoo woote république seeni mandargay république waruñu ko altérer donc altération boobu euh, day wone rek ni moom lu ko neex lay def sàmmantewul ak yoon deful yëfu républicain te ñoom ñoo tuddee seen bopp républicain kooku mooy première remarque bi kooku c'est dans la forme mais dans le fond euh, li ma ci gën a retenir mooy li feeñ tey ci défilé bi mooy dafa wane ni am na doole yokk na ay brigade ay commissariat de police yokk na ay escadron de gendarmerie bu noppi di lim gox goxaan ak arrondissement yi ñu ko yokkee yépp euh, communication de détail boobu du communication chef d'état da nga jàpp ne détail la non am nañu commissariat bu ñu def Kër Massar bii ñu ko def yëmbal bi ñu ko def mbour bi ñu ko def feulé détail bobu mënon na ñàkk boo ni am nañu quinze commissariat rek doyna mais il faut mu joxé koñ bu nek bu am commissariat ak gox bu nek bu escadron légui comme ni mu né relevé nañu effectif yi xam fofu joxé wul chiffre nee yok nañu limu tak der yi joxé wul fofu chiffre donc mënon na doxalé nonu ci def ben discours bo xamni lu tënku mais détail yoy mu dugg mhm. pour wone ni moom euh, am na doole bu mu xeexee askan bi da jàpp ne dafay noppe daal. Euh, waaw loolu la ci jublu parce que moom nee na defu ko pour pour aar suñu kaarange wala kaarange réew mi mais daf ko def pour riposter pour force de yi mën a riposter xam nga baatu riposter euh, mooy defante donc kan lay defanteel fii xam nga ñun nekk ñu guerre askanu Sénégal kese lay defante donc tey man bi may ñëw li ma yéexal ci yoon bi sax mooy corps convoi gendarmerie moo ma ñoom gis ay yu bees tax ay semi blended. yii mhm. ñu montal leen ay lance grenade multiple yii ñu montal leen canon et mhm. donc euh, ay tout ça parade bi nga pour askan mais mhm. parce que mënul ci askan dara mais menace aussi également amna ci ci dëkk bi. ak l'exploitation lu jëm ci walum pétrole beeg gaz beeg yi ni mel. non yoy amul benn menace xam nga euh, ñun suñu pétrole ak suñu gaz. Mhm. offshore la manam ci biir geej la nekk. xam nga loo xam ni Sangomar par exemple c'est à 125 km des côtes. xam nga nga daw 125 km lu day ni Dakar ba Tivaouane ci biir geej pour doog a àgg ci plateforme xam nga foofu ñoom Guy Marius Sagna duñ fa dem di manifester ak sama genre yi di yóbbu ay pancarte ak yooyu xam nga foofu c'est tranquille amul ben menace amul ben menace vraiment mhm. du loo xam ni day jaar ci jéeri ji et cetera kon loolu lay la rek mais Sénégal ci stabilité la nekk. Sénégal dégg nañ fi ay forces et culture dégg les commandos de Pastef dégg les yeneen ak est-ce que quand même du loolu moo tax muy jël ses préventions. Euh, yooyu ay dossiers yu ñuy monter rek xam nga commando bo xam ne amul fusil euh, comme ni ko Sonko waxee benn lunette la am.

activité subversive financement d'activités subversives. subversive maanaam day financer ay activités yo xam faites, fay danel nguur lañ ci lañ ci jublu donc ay force spéciale ak force occulte loolu fi lu fi jar armada bob. amu fi fi benn foyer de tension mo fi am Sénégal té amna akal accalmie muy Casamance benen foyer de tension bu fi am euh, sur le plan politique et social lay don mmh. té affaire maintien d'ordre du affaire guerre c'est c'est du maintien d'ordre donc loolu euh, c'est vrai que ñoom am nañ ci njàqare il fallait que général Moussa Fall dalal xelu euh, Macky Sall ci ni mën na mën na maintenir ordre public euh, xëy na aussi bëgg nañ ci xuppaale ci nit ñi mais ndaw yi loolu xupp leen. mais bi ñu gisee li fi xew li fi xewoon au mois de mars également est-ce que l'État amul prérogative wu aar ñi nga xam ne moo di askan bi ak seen i ay alal ak yooyu. non loolu prérogative wu État la naka jekk. ci ci ci mission régalienne État la bok aar. Euh, euh, la protection des hommes et des biens lolo, lolo, walou, état Mais mais président bu est riposte euh, a une signification riposte Je nga ak riposte du benn. daf mel ni soulèvement soulèvement da ngay def li bëgg li askan bi bëgg. da ngay mhm. les lois de la république mais askan

euh, c'est rénovateur c'est novateur parce que dès que vous ni Ouganda. Mhm. depuis 2016. est-ce que xam bus de transport en commun Ouganda yi seen Dakar il y a ay bus solaire la savez, made in Ouganda. ok Ouganda nous ko defar. Mhm. kon loolu bu fekkee ni tey jii indil nañ terre boo xam ni dañoo obligé louer un bateau buy defar courant. Euh, euh, Caredenis Ship, mhm. pour mën supporter consommation euh, terre tey jii ñu jël BRT bo xamni ni dañu jël option solaire lolu je crois que rectification la cent pour cent électrique li tax mu mu mu mu intéressé ma mooy mhm. fofu la adina jëm fofu la jamono ci nit day and ak jamono parce que mhm. Union européenne en à partir de deux mille trente cinq bu am moteur dootu fa daw voiture électrique kessé mo fay daw té solaire électrique la tamit mhm. légui ñun yalla may nañu naaj yalla may nañu euh, sable extra-siliceux parce que suuf la ñuy defaree verre te panneau photovoltaïque verre avec ak ay filament d'argent loolu yëpp am nañ ko kon mën nañu importer technologie au-delà de créer ay bus comme nous montons monter Tata yi Thiès mën nañu créer suñu propre ligne de production comme mm-hmm. Ouganda ni mu koy defee ñu investir vraiment euh, dans le renouvelable et dans le solaire élargir au transport en commun c'est-à-dire le Dakar dem di ki jël ay gasoil ak ils peuvent fonctionner au solaire comme Ouganda a fait ko réussir je crois que loolu war nañ ko documenter pour nit ñi xam ko donc euh, té li denc courant accumulateur courant moy mhm. li wax lithium lithium bobu Sénégal daf ci am 20 gisements té or blanc la monde bi mhm. euh, dañ koy dañ koy donc mo nek suñu batterie auto yi batterie euh, téléphone yi batterie ordinateur moom moy tax nga mën charger nga mën denc courant moom tax nga mën réserver courant. kon loolu ñun am nañ ci jugement yu bari yoo xam ne. Mhm. fi mu nekk ni Elon Musk bu États-Unis nga xam ni moom pionnier la ci électrique. Mhm. ak chinois yi ñooy xëccoo fi mu nekk ñooy njëkkante fi mu nekk nii di jiiroo lithium bi des ci monde bi. te ñun am nañ ci 20 gisements yoo xam ne joxe gum nañ ci benn depuis 2017 benn société chinoise. Mhm. loolu foog ñu yee ci nit ñi xam ni denrée stratégique la. donc mënuñu wax électrique sans lithium.